Voilà, on reprend. Roger Mendy, ancien international du Sénégal. non fi mu ne bi may gunge sama sama sama xarit yi sama gars yi parce que Fallou moo xewle te Fallou dafa bokk ci ñun mu nekk xale bu baax xale bu xam boppam te defe bu wootee war nu ñëpp war nu teew parce que man bi ma waroon na football mais bu ma ko annoncé dama gaañu. mu ne waaye léegi ñu ni def ma ne ko même bu ma gaañoo sax dinaa ñëw parce que jar nga loolu donc euh, tey sunu présence parce que ñun euh, sunu présence dafa war a teew ci bépp buy manifestation parce que da ngay dem dootoo amati benn appartenance ñëw daal ne man fii laa bokk parce que boo demee ba football équipe nationale moomatoo sa bopp nitu nit ñi nga dakaar moomu ma Thiès moomu ma Sénégal moomu ma donc daal ku ci xaj te ma am ci temps te mu soxla ma bis mu soxlaa dinaa ñëw te dinaa jéem a andi sama contribution pour luy doxal footballu Sénégal ëllëg. Roger yow dem nga ci terrain yu bari défendre couleuru Sénégal non ñun sunu sunu football euh, defe naa ci jukko la parce que dañu war a defaraat lépp. parce que tey bu amee dara lu doxul bu ñu wax rek nañuy continuer di dem noonu toog xool lan moo doxul ñëpp toog waxtaan parce que defe naa tey pour ñu déem a doxul suñu du talent moo fi manqué talent bi mi ngi fi am na fi talent yu bëri waaye tey bu ñu xoolee lu ñuy gën a handicapé tey mooy que euh, da ngay toog tey ay joueurs yiy jóge fii dem Europe mën nañ ko comprendre mais ay joueurs yuy jógee Afrique suñu bi dugg ci biir pays africain yi vraiment war nu seetaat loolu parce que boo jógee fii c'est pour avoir des euh, des salaires de quatre cent mille de de cinq cent mille six cent mille defe na avec quelques ah, efforts du euh, guvernement ak sunu président yi mën na nañu maintenir sunu jour yi loolu moo ñu privé CHAN bi euh, contre la Guinée parce que on avait des joueurs après jour yooyu mujj dem donc ñu mujj waat jëlaat neneen ndax lan ñu ci bare ñu dem ñu ngi dem avec des six cent mille des cinq cent mille francs yooyu defe naa ci luy gën a yàq luy gën a tardé ah, sunu football defe naa war nañu ñun ñëpp toog xool. lan mooy sunu góom ñu jéem ko faj parce que bu fekkee nii la nar a continuer rek xëy na dina jure dara parce que à chaque fois boo équipe bi demee. comme les Jeux africains ñu commencé gagné ñu ne Sénégal moment boobu la ñëpp di taxaw defe naa dafa am benn travail de base boo xam ne war nañ ko fi liggéey ñëpp toog expert football yëpp toog qu'est-ce qu'il nous lan la ñu soxla ñu jéem ko saafara jéem ko xool jéem ci liggéey parce que liggéey bi ci suuf dafa bare yenn dëkk yi nga xam ne dañ leen rowoon ñëpp ñoo ñu row tey. mais le moom la def des états généraux du football il faut ñu toog xool suñu football lan la ñu bàyyi égo yi. yaa ngi may dégg ñu bàyyi yenn jikko yi xam ne tey ku ñëw pour toog di waxtaan dafay ñëw pour waxtaan waxu footballu Sénégal naka dañ koy avancer mu dem kanam parce que yenn euh, boo ko seetloo organiser nañ ko fi 92 ñun la woon on l'a perdu tout récemment organiser ko avec les u on a perdu avec les U23 on a perdu donc a chaque fois bu ñu demee loolu yëpp am na ñi nga xam ne ñu ngi ko dugal ci plan mystique par man de loolu pour man noonu xoolaat jikko yi nonu xoolaat sunu football nu muy demee ñuy commencé di jër nit parce que la majeure part ñun sénégalais am nañu fit bari nañu wax amul kenn ku ñu ragal. waaye sénégalais dafa gaaw a bàyyi bu jàppee day jàpp tuuti rek bu méttee rek mu bàyyi ñun dañoo gaaw a bàyyi defe naa euh, dañu war a defaraat jikko yi parce que Sénégal bu njëkk ba melul woon noonu. merci merci. Euh, Sega Sakho ancien international de football. ah dama yëg lu lu bëree bëree bëree bëree parce que vraiment kontaan naa trop ci Fallou euh, bu les internationaux de Thiès les anciens footballeurs de Thiès ni dañ may sargal dañ may décorer pour euh, service rendu à la nation pour le football vraiment dama ci kontaan trop trop trop trop trop vraiment waa waa Kaolack defoon nañ ko daaw waa Thiès def ko ren xëy na déwén ñun waa Dakar ñu def ko mais vraiment c'est une bonne boo xam ne ñun anciens yi ñooy tase kaf foré parce que football bi ñoo ko bokkoon bokk ñoon équipe ñi ñoo bokk équipe mais xool yëpp benn la quoi parce que ñun loolu lañ xam vraiment loolu lañ xam ba football bee tax ñuy tuddante doom du tuddalante doom ak yooyu yëpp vraiment euh, waaye. Euh, non football Sénégal demeewul dara parce que football Sénégal la bon gaa yaa ngi toppatoo gaa yaa ngi kërti kërti bon mais ñi ngi ñi ngi ci quoi ñu ngi ci football Sénégal dina dem dina dem ci kanam dina dem yi parce que mu ngi ci yoon yi parce que daanuñu am. am na ay temps yoo xam ne petite catégorie yooyu daanuñu ko am petite catégorie yaa ngi dem bay dem ay buy wut ay jël ay médailles ñëw di ñëfe Rio bi demuñu mais c'est pas la fin d'une guerre on recommence on recommence ñun ñëpp ñu juboo man toujours loolu la ñun ñëpp ñu juboo mettre les gens à leur place ku ne boo waree yore potundaa nga yore potundaa sa yoon newul ci yenu yenu loolu la parce que football bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp xol yi na na xol yi set laab ñun ñoom ñu bokk xol ñu yor xol yu baax ñu mën a avancer mais bu fekkee ñii di ñuy liggéey ñii di gas ñii di suul du ñu dem fenn duñu dem fenn duñu dem fenn man démb match bi tasee dama toog sama xol fees mënu ma wax dara ma toog jàpp si yàlla mais vraiment football Sénégal waaw déception déception man daal mënu ma ci wax dara quoi mënu ma ci wax dara mënu wax dara parce que man hier j'étais j'étais écœuré vraiment démb man nelaw ma ba dama doon xalaat match bi rek pour qualification parce que une fois nga koy am ci at ci ci quatre ans vingt trois ans ñi am vingt trois ko am parce que dans quatre ans vingt sept ans la ñu am voilà mais vraiment ñu gën a góorgóorlu rek football bi suñu football Sénégal dina mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem te dina dem bu baax a baax je vous